léegi déroulé nañ test runner bi ñuy gis ni instant bi nii affaire yaa dem benn par benn léegi dañoo jàllale deux cent vingt tests yi en fait bon bi moo ko def façon automatique instant bi nii on a les statuts pour chaque test suuf ni ngeen ko gisee fii nii am na yu bëri yoo xam ni passé nañ ko donc ça une bonne chose ça veut dire qu'on a bien build léegi am na yoo xam ni dañ ko ignorer léegi soo leen seetloo yi ñu ignorer yi nii yëpp ci kalam da nga am tag descriptor donc loolu la leen expliqué woon si vidéo précédente bi soo leen bëggee xam la mooy descriptor on vous conseille ngeen dem étendre par un là par exemple on a wallet Taproot donc Taproot mooy dernière mise à jour bi am ci Bitcoin te mu ngi waaj jàll novembre sax là on a temps passé pour ces tests là donc temps bi nag c'est c'est relatif ça dépend dépend si machine bi donc là dañuy jéem a xool benn test xam dañ koy dérouler comme ça ngeen gis log donc là on va essayer de voir alors nañ dem ñu tester RPC PSBT moom mooy partially signed Bitcoin transaction donc fii gis nañ ni li muy def mooy dafay jéem a créer benn wallet après de jouer un peu si yi léegi dafay tester différents types de bi PSBT parce que je vois mu ngi chargé loolu ba léegi nii comme ni ngeen ko gisee day def scénario yu bëri am ah. léegi scénario yi parfois se piéger soi-même on na lay réagir parfois ay test de validation la mais dans tous les cas lépp mu ngi si code donc instant bi nii qu'est-ce qu'on tout es ok test successful léegi nañ dem xool beneen test peut-être un bon Moi, j'aime bien P2P. nañ dem c'est le benn connexion bu bees suñu në donc comme da Python rek ok donc bii moo gën a intéressant parce qu'il fait un peu plus de choses mais dans tous les cas le test est passé donc fii lu ñu am mooy dafa créer huit outbound connection suñu note suñu nœud donc da ngeen am différence entre outbound ak inbound outbound mooy ñu ñoo leen dem di leen laaj information ñu jox ñu ko inbound mooy dañuy jox information sans ñu laaj leen ko donc il est même conseillé am que des connexions outbound en sachant que ci contrôle yi ngay laaj léegi broke block relay only node muy nœud yi nga xam ni ñoom duñ def lu dul relay block yi rek ñoom transaction yi nga xam ni validé wuñ leen du jaar si ñoom quoi léegi inbound yi ma leen doon expliqué mu ngi nii kon test bi dafa créé no pour nœud zéro huit connection mu yokk si deux nœud block relay only mu ajouté ko tamit si nœud un bi mu dem si nœud 1 bi mu ajouté cinq inbound connection après huit inbound connection et soo leen wàcc si suuf ce qu'il a fait mooy dafa déconnecté dafa déconnecté nœud yi après mu reconnecté leen mu kon nag su leen reconnecté dañuy dem connecté wu ba léegi nii si nœud yi ñu nœud yi ñu leen njëkk a lié quoi au tout début mais comme ni mu le test est réussi léegi nañ xool. beneen test encore pour mën a créer benn portefeuille parce que lii moom su doxul ça veut dire que ñun moom suñu nœud bi nii ça ne sert à rien donc nañ dem tester ko xool ok donc fii si li may gis nii mooy dafay créer avec différents waa scénario donc premier bi dafay désactiver private key en sachant que soo leen amee seen wallet clé privée bi moom mooy l'élément le plus important la il crée aussi benn portefeuille bu ñu crypté mi ngi aussi def benn wallet boo xam ni donc benn wallet boo xam ni dafay éviter ñu réutiliser ay adresse am et donc passphrase with private keys disabled benn boo xam ni sans clé privée bi dem ba pare mu retourné benn erreur message de loolu ça veut dire que c'est bien passé quoi grosso modo nii ngeen mën a dérouler yi test yi benn par benn si vous après ngeen dem euh, ngeen xool log yi ngeen analyser yi léegi su fekkee yéen da ngeen bëgg vraiment dugg si plus de détails gis ngeen ni si chaque test avant test successful dafay nettoyer benn on di dire benn euh, dossier temporaire donc dossier temporaire boobu si ngeen dem am log mais vraiment détaillé yi quoi dans tous les ku nekk da nga ko war a déroulé balaa ngaa mën a def dara ak sa